ku nekk mën ngaa dem lijjanti sa bopp bu ngoon jotee nga dem toog jàpp sa yàmbur ak sa njaboot loolu moo gën a yomb lu mu jaral yi yàq dina jaral lu ñu toll ngir defar ndax réew mi rek la ñu am Sénégal la ñu jox suñuy guddi ak suñuy bëccëg Sénégal moo tax mënatuñoo nelaw ko yandoor Sénégal moom moo tax jamono bu nekk ñu jóg mu fu ñu nit woowee ñu bàyyi su yitte yi ñuy def yëpp dem bokk ko ak ñoom fa gën sori ci Sénégal mën nañ ñoo seedeel loolu mën nañ ñoo nangul loolu danaay tappale wala danaay njuuj njaaj taxuñoo jóg li ñu jóg li ñu tax a jóg mooy dem dagaan baatu sénégalais ay candidat Papa Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah.